jërë ngeen jëf internetu Buzz SN TV ñi safoo di seetaan suñu chaîne bi daleen ak jàmm si seen actu jour tey nag ñu door seen jour ak coowal Nabou Dash ak kii di Rangouzé ko ko njëkkee nag du kenn ku dul Nabou Dash ginnaaw bi nga xamante ne nii sax moom mi di Rangou amal na ab benn vidéo di défendre ki nga xamante ne nii moo di Nabou waaye nag Nabou Dash du ko yemale place am la mu ko xamal du lenn lu dul yow mi rangu Rangou boo amee looy wax kenn wala booy joxe ay conseil sa bopp nga ko war a jox ndax yow boo xamante ne ni eh, référence la ci miim réew ndax nag yow nekk nga benn eh, cega boo xamante ne ni ngeen jiggal ma ci kaddu yi waaye nag moom mi di Nabouda Chikri ay kaddu yu doy waar teg ko ci noddu ki nga xamante ne ni moo di rangu di xam le ni sax ki di rangu day jaay boppam alors que moom mi di Nabouda jaayul boppam wala buy jaay boppam ci côté jëkkëram lay jaayee boppam buy cegatu ci eh, jëkkëram lay cegatuwee bu buñ koy fay jëkkëram moo koy fay yow mi nga xamante ni yaay rangu rangu mi mi nga xamante ne nii day organiser ay soirée privée koo xamante ne nii maanaam euh, nekkul référence jamono ji fii nii ci réew mi kon nag booy amee looy jox conseil koy jox conseil sa bopp nga ko war a jox loolu nag Nabou Dash ko xam le ni ki noonee sax moom mi di rangu bàyyiwul ki nga xamante ne nii moo di Nabou Dash moom mi di rangu tamit di euh, jénne a benn vidéo di attaque ki nga xamante ne nii moo di Nabou Dash ginnaaw bi nga xamante ne ni yor na ay dossier ki nga xamante ne te bu nank nag sax dana jënd li nga xamante ne ni moo di dossier eh, Nabou Dash mu dem sax bay wax ni moom mi di Nabou Dash de loué ay kër yoo xamante ne nii sax du ko mën a fay millions yi nga xamante ne ni mi ngi leen koy wax jamono ji ci live yi nga xamante ne ni mi ngi koy amal nekkul loo xamante ne ni dëgg la maanaam day dem loué kër te bu loué kër ga nag dana ko yoreel deux mois yoo xamante ne nii du ko fay bu ko defee day suul foofu ay bopp xàcc wala leneen leneen ngir borom kër googee du ko toppee dara moom mi di ak di rangu moo noddu yooyee teg ko ci noddu kii tamit moo di Nabou Dash ji nag seen diggante ñoom ñaar tang na trop des ci coowal Nabou Dash ak rangu ba tey kii di Adamo nag daal di nay addu daal di wax ni yéen ñaar ñi da ngeen a war a yam mu njëkkee nag ci ki nga xamante ne nii moo di Nabou Dash ma ngay wax ni sax Nabou Dash mariage ak divorce ñoo ànd waaye nag boo divorcé da ngay xam ni yàlla moo ko dogal waaye nag divorce nekk ci li nga xamante net bi di wili pande ñi nga xamante ne nii moo di say uh, jëkkër wala say ex jëkkër nekkul loo xamante ne nii lu baax la ni ki noonee sax moom mi di aadama ma ngay dem bay wax ni yow da nga am ay doom te sa doom yooyee dinañ uh, màgg te bu ñu màggee gis li nga xamante ne nii yaa ngi koy uh, def dina nekk loo xamante ne nii dina ñaaw te yow di nga si rus moo tax nag yow jamono ji da nga war a yem xam ni mariage ak divorce ñoo yem te moom mi sax di aadama ma ngay wax ni sax jamono ji réew mi da talul réew mi jamono ji daño nekk ci li nga xamante ne ni moo di ay jafe-jafe li nga xamante ne ni moo di inondation yi jamono ji sonoon na li nga xamante ne ni moo di population bi eh, teg si tamit eh, dund bi serna ni ki noone nag moom mi daal moo yamale na ku place am muy kii di Nabou Dash mu ne nag kii ni di Nabou Dash tey bu jugee mu ngi ci Rangou tey bu jugee mu ngi ci tukkee lawbe tey bu jugee mu ngi ci Papichou kon nag nekk na loo xamante ne ni doy na waar trop ma ngay yemale place am kii di Nabou Dash di ko xamal ni yow da a yem ci ci li nga xamante ne ni moo di sa place loo xamante ne ni sa vie privée la ko moo gën ngay amul sens wala di wulipande xamante ne ni moo di say ay jëkkër wala say ex jëkkër nekkul loo xamante ne ni lu rafet la nekkul loo xamante ne ni lu baax la moom mi nag di Adamo Boss des Negri moo yëkkati kàddu yooye teg ko ci ki nga xamante ne ni moo di Nabou Dash ak kii di Rangou ndax nag coow li bari na trop seen diggante dañuy wax Viviane Chidid la reine du mbalax moom mi nag di Viviane Chidid ginnaaw bi nga xamante ne nii sax fekk nañ ko foofee ca euh, Salam daal di koy def li nga xamante ne nii moo di prank star mu mel ni ne nag ginnaaw bi nga xamante ne nii sax def nañ ko loolee euh, moom mi di Viviane tàng na lool waaye nag équipe bi nga xamante ne nii moo di Mahfouz ak euh, ñi nga xamante ne nii moo di équipe am ñoo daal di ko def loolee ki nag di Awa Baldé moo daal di jaar foofee moom mi nag di Viviane Chidid ne mën naa kaf mën naa lépp waaye nag boo ma bëggee def loo yéen nii du ko nangu moom mi nag di Viviane Chidid ñu wax ni ko sax yow sa beneen facette la ñu bëggoon a gis ndax nag prank yi loolu rek moo ko tax a jóg maanaam beneen facette star bi ñu xool ndax star bi yéen yi dina si dugg wala du si dugg moo tax nag ni ki démb moom mi di Viviane Chidid tàngoon lool ginnaaw bi nga xamante ne ñi sax ma ngay wax ni Awa Balde man kenn du ma yëpp mën naa kaf mën naa lépp waaye nag boo ma bëggee dugal ci yéen yi du ma ko nangu si di jeexsa di jeexsa nekk benn animateur foofee télévision 2 TV euh, moom mi nag di di jeexsa nekk benn influenceur benn tiktoker bu ñu ràññee lool ci Sénégal moom mi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii sax daal di nañu koy piraté maanaam nag moom mi di di jeexsa dafa am benn euh, tiktoker benn benn boy bu ubbi bi nga xamante ne nii moo di compte tiktok daal di koy euh, tuddee di jeexsa alors que sax nekkutoon moom mi di di jeexsa ndax nag ku ne xam di DJ Kheucha compte TikTok am am na un million plus de un million d'abonnés waaye nag kooke nga xamante ne ni ubbi na compte boobe daal di ko euh, tuddee DJ Kheucha dafa dugal ab benn vidéo euh, benn jigéen boo xamante ne ni tamit benn tiktokeuse la nekk ci tiktok bi tudd Ndeela moom moom i nag euh, borom compte boobe tuddee ko DJ Kheucha dafa dugal ni Ndeela moomee dafa gaañu maanaam dafa génn àdduna dafa dee waaye nag ginnaaw bi nga xamante ne ni sax kii di DJ Kheucha loolu nag nekkoon lu siiw di Kheucha nag yëg loole daal di koy metti trop ba tax sax mu daal di koy wax ca télévision 2STV boobee muy animé nit ki tey bay xam ne ni sax yow mi nga xamante ne ni yaa def loolee man gënuma la gënuma la papa gënuma la yaay maanaam nit da ngay gëm sa bopp boo nekkee si dara da ngay gëm sa bopp man gënuma la papa gënuma la yaay mu mel ni ne sax loolu metti na ko ba tax sax mi ngay wax lu tax mu ñëw wax ko ci télévision bi maanaam moom booy bee li nga xamante ne def na ko da def publiquement moo tax nag moom tamit mu daal daal di ñëw daal di koy euh, wax ci li nga xamante ne ni télévision bi 2STV bi ko ndax mu mën a mu mën a setal li nga xamante ne ni moo di deram ba tax sax saa mu setal deram lool nag ku ne xam na ni moom du DJ Kheucha ndax nag DJ Kheucha am na benn compte TikTok ku ne xam na ni am na compte TikTok bu am un million plus de un million d'abonnés mu nekk nag jamono ji loo xamante ne ni ñaaw na trop ñu ràññee lool fi fii nii ci Sénégal tàggee nit alors que deewul wala di ko jaarale si nga li compte star di tàgge ay nit mu nekk loo xamante ne nii ñaaw na trop. wax si Lamine Samba Lamine Samba nag nekkoon nekk jamono ji foofee ca TFM moom mi nag di Lamine Samba nekk koo xamante ne nii gëjoon nañu ko gis foofee ca Télé Futurs Médias moom mi nag di Lamine Samba journaliste bi mbay Mbaye Kouthia démb daal dina koy interviewé mu koy laaj nag lu tax jamono ji ñu gën la gis waaye nag moom mi di Lamine Samba la mu ko xamal du dara lu dul maanaam alalu ku sàggan ku farlu moo koy mujjee jamono ji ay télévision yu bare bari ñi ngi may dama am contrat foofee TFM te ab CDI laa fa am liggéeyuma waaye ñu ngi may ñu ngi may fay sama salaire teg si tamit samay doom bu ñu feebaree danañ ma ko fajal moom mi nag Lamine Samba moo daal di yëkkati kàddu yooyu waaye nag lu mu gën a xamle maanaam alalu ku sàggan ku farlu moo koy mujjee mu mel ni ne nag kon waa TFM dañu ko sàggane ba tax sax muy wax ni ab ndaanaan kenn du ko suul maanaam kenn du jël koo xamante ne ni du ndaanaan di ko teg ci kaw ndaanaan mu mel ni ne nag moom mi di Lamine Samba loolu daal na koy metti trop waaye nag moom it di Lamine Samba nee na daal heure boo xamante ne nii dàq nañ ko foofee ca TFM dina dem ci beneen télé waaye nag moom mi du jékki saay quitté foofee waaye nag bu quitté foofee day nekk loo xamante ne nii dafay xaw a ñaaw trop waaye nag heure bu ko dàkkee rek dina dem ci beneen télé moom mi di Lamine Samba ñu àddu ci kati série Virginie nekkoon foofee ñu gën koo xam ci maam Diarra seen Petit Galle euh, moom mi nekk di kati série Virginie euh, tey nag dañ ko invité woon foofee ca Seneweb TV euh, moom mi nag di kati série Virginie daal di nañu koy laaj ndax danga am relation ak kii di oustaz Modou waaye nag ba ñu ko laajee loolu rek dafa le ni loolu noonu nekkul dëgg ndax nag moom mi di kati oustaz Modou Fall ci fenn rek la ko xamee maanaam mooy ci télévision bi la ko xamee waaye daal xamewu ko feneen fudul ci euh, télévision bi waaye nag ñi nga xamante ne nii ñoo di waa TikTok ñooy jël ay euh, collage di ko collage di jël photom di ko collage ak kii nga xamante ne nii moo di photo oustaz Modou Fall ba tax sax moom ci rakkam la ko xamee woon ndax nag rakkam da doon défilé ci li nga xamante ne nii moo di euh, TikTok bi ba daal di gis li nga xamante ne nii moo di seen collage boobee nga xamante ne nii def nañ ko moom ak oustaz Modou mu nekk nag loo xamante ne nii mi ngi koy ñaawlu nekk nag loo xamante ne rafetul dara ñu def ko ki ki nga xamante ne nii moo di eh, Katy série Virginie moom sax nee na eh, moom eh, oustaz Modou Fall ci télé bi rek la ko xamee waaye nag xamewu ko feneen mosu ko gis sax bët bët kon nag nekk na loo xamante ne nii jamono ji sénégalais yi ñu ngi yàq TikTok bi ndax nag dañuy tàgge nit alors que nit koo koy deewul wala nag ñu jël kenn ne bëgg na koo koy alors que loolu amul mbëggil sax amul foofu seen diggante wala sax xamante wuñ mu nekk nag loo xamante ne nii ñaaw na trop loolu nag sénégalais boobee wala nag ñu xoolaat leneen loo xamante ne ni war nañu koy def ndax nag jamono ji buzz moo sonal nit ñi ak li nga xamante ne ni moo di vie kon nag nañu farlu ak foogu loolu moo ëpp njëriñ kon gaay yi ba suba ak jàmm